docteur Assane Diop euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. docteur Assane Diop nga nekk euh, président bu syndicat de pharmaciens privés du Sénégal ni ngi ni dimanche bi ci la ñuy màggal euh, bés bu ñu leen jagleel di journée mondiale des pharmaciens déjà yow naka nga xalaate bés bi. waaw jërëjëf ci laaj bi maa ngi nuyu auditeurs yi. ni ko gisee rek mooy li ko tax a jóg mooy gën a xamel population bi. Euh, lan mooy njëriñu pharmacien ak lan mooy liggéeyam si lan la nekk ak lan la koy defee muy lu am solo parce que mm, bare na ñu réerle liggéey lan mooy njëriñu pharmacien kan mooy pharmacien lan mooy rôlam ak lan lay liggéey ci système de santé bi ñu jàpp ni am na solo quand même de temps en temps ñuy fàttaliwaat mais aussi di réfléchir si tey jii liggéeyu pharmacien bi nan lañ def nan la ñu mën a def ba mu gën a jëm kanam. Mm-hmm. ñu bañ ko yamale rek ci gis ko comme kuy jaay garab parce que souvent loolu la ci nit ñi di gis mais loolu pharmacien romb na foofu donc journée bi daal loolu lañ ci gis mu am solo mooy dinañu permettre ñu gën a mën a euh, leeral euh, njëriñu pharmacien bi ci système de santé bi. voilà docteur Assane Diop tey jii boo ñu doon wax euh, euh, importance bi nga xamante ni pharmacien bi am na ko déjà euh, ci secteur médical ci système de santé bi wante tamit ci société bi lan nga ñuy wax exactement. waaw li ñu mën wax mooy ku wax pharmacien wax garab garab dafa am li nga xam ne moom lañ ci xaar mooy warul lore bu ko nit ki jëlee. liñ ci séntu ñu moom lay faj bu ko jëlee war na si gis njëriñ te war na doon lu wóor donc ñett yooyu moom moo tax ñu def le monopole jël garab dénk ko pharmacien euh, bu comme boo nee pharmacien ni garab boo ne garab ne wérgu yaram tey ji dafay ñëw moom garab mottali liggéeyu docteur bi hmm. docteur bi gannaaw bu mu seetee malaatam def ay analyse am ak rajo am ak yëpp day bind ordonnance ordonnance boobu nag nit bu ko jëlee ni mu ko war a jëlee ak fam ko war a jëlee li ci xaar mooy mu mu mu faj ko d'ailleurs day sax indi benn discussion mooy tey jii médecin bi dañ naan a l'obligation de moyen mais pharmacien bi dañ naan il a l'obligation de résultat maanaam boo nee garab bi dañ ko def pour yaram bu tàng ku yaramam tàng bu ko jëlee war na am sedd wala yaramam war na sedd même lu mu néew néew mu gis ci loolu donc loolu mooy vraiment importance bi bi bi bi pharmacien am beneen importance bi ñu ci mën a wax mooy dañuy dellu léegi li ñuy wax chaîne de valeur du médicament mm-hmm. depuis fañ koy saytoo maanaam def recherche euh, est-ce que lii war na faj ñu fexe ba xam ci loolu di faj maanaam boo jëlee benn xobu garab génnee ci molécule bi xool ndax du lore ban dose ngay utiliser lu recherche développement ba ba nga koy jox nit ki ba ba nga koy defar garab d'abord bu dee comprimé la ba ba ngay sécuriser distribution bi fañ koy joxe ba mu egsi si biir pharmacie bi pharmacie bi téye ko na mu ko war a téye ba koy joxe côté boobu yëpp pharmacien bi dafay intervenir waaye pharmacien bi tamit dafay former day jàngale eh, pharmacien bi tamit dina nekk hôpital di accompagner liggéeyu médecin bi eh, donc yooyu yëpp day wane place bi nga xam ne tey jii pharmacien bi mi ngi koy jouer eh, ci ci ci ci ci système de santé bi. Mhm. tey jii boo ñu doon wax euh, exactement docteur Assane euh, Diop euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy les vendeurs en pharmacie ay docteur lañu wala ban formation lañuy am exactement ak naka lañ leen di recruter. waaw li ñu ëppoon di gis bu njëkk mooy kiy jàng ba xëy na toll yenn niveau yi muy niveau BFM bu njëkk wala yooyu ak CM2 doon na leen jël. tàgg tàggat leen du toll ci juróom benn weer ba at après jël leen ñu nekk vendeur en pharmacie mais li ëpp léegi li am mooy école yi ñu ngi former ay vendeur ñu ngi former ay préparateur en pharmacie ñi nga xamante ni nag léegi dañuy am bac defaat ñaari at ba ñetti at formation ñooñu léegi daanaka ñoo ëpp ci ñuy liggéey ci pharmacie yi donc normalement li ñuy gën di euh, gis ak li ñu recommandé mooy recrutement yi di dem vers ñooñ nga xam ni formé na leen ba pare si métier bi mais effectivement bu njëkk moom daanaka euh, ku daan mën a egg yenn niveau yi mën lire mën bind rek mën dañ la daan formé après nga nekk vendeur mais vendeur en pharmacie quand même du du pharmacien euh, du docteur donc souvent comme j'ai dit li ëpp mooy niveau bac plus deux plus trois wala BFM plus quelques années de formation est-ce que euh, pharmacien bi euh, médicament yi muy jaay yëpp est-ce que maitriser na ko xam na ko. waaw pharmacien moom amul jafe-jafe maîtriser médicament parce que dañ koy jàngal juróom benn at bi muy def faculté médicament bu mën a tegu ci loxoom bu ko liiree xam liñ ko defaree rek di xam dina xam nan lay jëriñ même médicament yi ñuy créé bees fekk pharmacien bi moom formé nañ génn na ba pare. Mhm. fukki at ci kanamam juróomi at ci kanamam ñaar fukki at garab bu bu tegu ci loxoom rek. parce que euh, tàggat nañ ko ba garab bu tegu ci loxoom mën na ko xam. même médicament yi nga xam day génn bees comme ni ko waxee. voilà même yooyu parce que mhm. tey jii am na médicament yi nga xam ne sax peut-être ba ñuy jàng ñun sax technologie bi amagul woon. waaw mais jàngal nañ ñu médicament toujours rek. fii lay jaar nii lay liggéey ci yaram bu duggee ci biir cellule bi nii lay def et ba tax na liir ko comprendre ko xam ko jafewul naam nag moo tax léegi ñuy wax ne na def des formation complémentaires. Ah maanaam doo génn faculté rek euh, bàyyeeku mais war ngay liir war ngay jokk euh, fexe ba am euh, di jàng. di def mise à jour daal technologie bees yi def mise à jour voilà. voilà tey jii docteur Assane Diop boo ñu doon wax ci seeni jafe-jafe sûrement am ngeen ay jafeñ-jafeñ tey jii benn wala ñaari difficulté euh, yu ngeen di rencontrer te bëggoon tamit euh, autorité yi euh, saafara ko lan la waaw bu doon ñaar rek damay tànn bu njëkk bi mooy mhm. ñu fexe vraiment ba garab yi nga xam ne yu bon yi circuler ci dëkk bi ñu arrêté ko ndax wax nañ ko sànq xam nga garab ba bu état ne monopole pharmaceutique mooy yow pharmacien bi yow rek laa dénk garab dénku ma keneen dafa am luñ ci ciy séntu wax naa ko sànq mooy. Hmm. efficacité inéquité sécurité. bu warul lore li ñuy séntu ci moom war na ci nekk te war na nekk lu wóor. Hmm. loolu boo ko dénkee pharmacien pare bàyyi ñeneen di def leneen te ñu gis leen te war leen mën na war ko arrêté arrêté wuñ ko loolu aussi lu ñu lu luy gàllankoor métier la lu ñu lu ñu métti la beneen bi mooy. ñu fexe ba développé yeneen secteur pharmacie parce que tey boo seetee ñëpp dañuy doom mujj nekk pharmacien d'officine maanaam am pharmacie de ville di dispenser ay garab alors que rôle pharmacien yaatu na yaatuwaay bi nga xamee ne mën nañ développer yeneen métier pharmacien ba nekk fa euh, am fa lam fa war a am dimbali réew mi yokk économie réew mi donc ñaar yooyu daal bu fekkoon ni am nañu ñaari yi nga xam ne vraiment bëgg nañu état bi taxaw si ñaar yooyu la ñu gën a développer les autres secteurs de la pharmacie. Mm-hmm. muy industrie muy pharmacie clinique muy distribution ak yeneen ak yeneen même recherche développement bi yooyu yëpp vraiment ñu fexe ba développer ko ba mën a absorber. ñi ni ñi ni formé bu ñu génnee ñu mën a dem ci liggéey yooyu. dañu gis ne tamit apparemment docteur Assane Diop euh, ubbi pharmacie yombatul lu ni mel lan moo ko waral. même nga nekk pharmacien jàng après war a ubbi euh, pharmacie ñu ngi ñuy xamal ni lu métti la da nga koy dëggal waaw wala déet. waaw actuellement dëggal naa ni lu xaw a jafe la ndax lenn xam nga tey pharmacien bu génnee moom du jóg rek istaan na mu ubbi pharmacie déedéet ministère de la santé ñoo war ñoom ñoo ne chaque at bu nekk dañu war a génnee ni fii ak fii ak fii la lañ soxla pharmacie yu bees mais bu fekkee toog nañu benn at ñaari at ba ñetti at arrêté génnul te université yi ay di forme kon nit ñu ngi génn mais mënuñu ubbi pharmacie muy benn benn difficulté beneen difficulté bi tamit mooy booy ubbi pharmacie fa nga ko war a ubbi dañuy xool ndagam moog yeneen pharmacie yi respecté nañu distance. Euh, ba tax na mën nga sax bëgg ubbi fenn mais ña fa installé déjà tax ba boo place boo am rek bu ñu ko seetee dafay jege pharmacie yooyu parce que tamit pharmacie foog nga teg ko ci kaw kaw tali il faut aussi mu nekk ci biir nit ñi et cetera ba si topp mooy euh, critère de population. mën naa gis tey benn zone man ni dama fay ubbi pharmacie parce que kenn kenn pharmacie nekk fa mais bu ñu seetee critère de population bi bu a eggul yenn niveau du duñ ko mën a accepter parce que taxe yi dafa ne dafa naa il faut que juróomi junni. Hmm. benn pharmacie pour juróomi junni nit. bu dee fi nga bëgg ubbi pharmacie ñetti junni ñoo fa nekk wala ñetti junni ak téeméer doo ko mën def donc dafa am critères yooyu daal mais surtout le fait que. Euh, ñëpp bëgg def pharmacie tamit indi na difficulté parce que Sénégal saturé na bu ñu ko comparé ak yeneen réew yu ñu jege ak lu mel ni Côte d'Ivoire ñëpp xam nañ ni ñoo ñu gën a rëy dëkk seen économie moo ëpp doole mais li am ci pharmacie Sénégal moo ëpp li am Côte d'Ivoire mu xaw a déséquilibré parce que tamit ubbi pour ubbi rek bu yàggee day yàq métier bi euh, donc. loolu daal moo mën na bokk ci mën expliquer difficulté yi. Euh, tey jii docteur Assane Diop ñu bëri ci askan wi jàpp nañ ne euh, jënd garab pharmacie seen médicament yi na trop lan moo waral cherté médicament yi. waaw d'abord dañuy préciser que prix médicament pharmacien du ko fixé état du Sénégal euh, jaarale ko ci ministère de la santé ñu jaarale ko ci autorité de régulation bi ñoom ñooy fixé garab bi. mais li tax médicament cher effectivement mooy li ñuy wax sànq defar médicament lu jafe la soo bëggee respecter conditions yëpp déjà lu jafe la donc mënul yomb parce que tey euh, pour defar garab li ñu lay exiger ci norme investissement bi nga war a def fi nga koy defaree ñu ne da ngay def traitement d'air da ngay def nii da ngay def naa li ngay utiliser ci intrant ak euh, courant ak ndox ak yooyu garab bi bu génnee mënul yomb mais ñun dañu am beneen difficulté mooy garab yi comme dañ koy jéggaane. ñeneen mm-hmm. frais da ciy dugg. encore parce que la ngay jëndee bitim réew bu ñëwee foog mu am lu ci tagu ci ci ci frais loolu moo tax mais daal dëgg la par rapport tamit au pouvoir d'achat am na médicament cher mais nag état bi mettre na en place. Mm-hmm. de médicaments génériques ak médicaments yi xam ne dañ koy déconditionné pour que pratiquement feebar yi gën a bari ci mi. boo boo boo laajtee garab yooyu am na ci tey jii am na déconditionnement pour faj tension. Mm-hmm. am na déconditionnement pour faj diabète. par daanaka feebar yi ëpp yi ñuy rencontré boo ko limee boo demee pharmacie demande générique am na fa loolu tamit pour fexe ba garab yi gën a accessible à la population. Euh, voilà ñu gis ni tamit euh, beneen jafe-jafe dernière question souvent euh, nit yu bëri dañuy euh, jaawale pharmacien ak médecin am na si ñoo xam ne sax au lieu que ñu dem hôpital médecin bi xool leen dañuy taamu dem ci pharmacien bi wax ko li leen di metti mu bindal leen garab ñu dem seen kër naan lan ngay wax si loolu est-ce que am na danger amul danger te est-ce que tamit pharmacien forcément médecin la waaw pharmacien du médecin Euh, certes dañuy wax docteur en pharmacie comme ni ñuy waxee médecin bi docteur en médecine mais loolu ci niveau de formation bi rek la docteur boobu signifiéwul médecin mhm. beneen précision de taille mooy pharmacien bi warul consulter naam dina def ay conseils euh, maanaam nit ki mën na saj biram mën na daw tuuti boppam di metti mu ñëw ñu conseiller ko mais li war pharmacien bi mooy gannaaw ba mu wàññee métit bi tax nit ki jóg wala arrêté biir bu daw bi wala daara dafa war a orienté docteur nit ki nekk demal après nga seeti médecin pharmacien du am table de consultation pharmacien warul am stéthoscope et cetera naam nit ñi tàmm nañu ñëw bu ñu leen dara jotee ñu jógee pharmacie mais pharmacien bi si conseil bi la yam conseil orientation wax nit ki jëlal lii boo tànnee demal boo tànnee wut tamit demal expliquer que lu tax mu war a dem ba mu nangu ko mais pharmacien du médecin te digaluñu tamit population bi ñu bàyyi dem dem hôpital tey dem pharmacie ko digaluñu ko kenn li ñuy digle kay mooy boo amee seeram lu sutante mu guddi wala yenn kii mën nga dem ci pharmacie bi am lu la soulager mais boo fa jógee da nga war gis médecin pour mu defal la consultation ba xam exactement feebar bi lan la peut-être laaj bu mujj est-ce que pharmacien dina dina fayit comme ni ñuy gisee ku bi magasin euh, dem ba ci biir am ay jafe-jafe daal di tëj est-ce que am na pharmacien yoo xam ne ubbi nañu pharmacie dem ba si biir mbir mi doxul ñu tëj pharmacie bi est-ce que loolu sa arrive te bu amee naka lay demee mhm. waaw sa arrive ça arrive euh, bareegul nag souvent di koy indi mooy euh, un niveau d'endettement maanaam bi muy door mhm. wala ci biir liggéey liggéeyam mu am bor bu ko permettrewul mu fay ko mhm. wala mu nekk fi nga xam ne am na fa marché parallèle bu ñu tere ko liggéey parce que ñun bu ñuy wax marché parallèle du boroom table yi rek mhm. tey su ma nekkee fenn man rek ma nekk fa pharmacie am à côté benn poste de santé wala benn clinique mhm. wala benn cabinet cabinet bi di jaay garab yépp man jaayatuma dara wala poste de santé bi di jaay garab yëpp man jaayatuma dara concurrence yooyu souvent mën na tax pharmacie tëj. Mm-hmm. pourquoi ma jël exemple boobu parce que tey pharmacie fi ñu gën a gis pharmacie yu tëj mooy zone Mbacké ak Touba pharmacie ubbi na fa marché parallèle bi tere la jaay nga tëj dem donc loolu am na bu amee nag comme ministère moo la joxoon autorisation teg la fenn danga leen di informer waat ñu defaat la même procédure jëlaat or arrêté bi ñu la joxoon ordre tamit jël les dispositions administrative nécessaire boo heure boo parewaatee am nga feneen wala bëgg du ubbiwaat wala bëgg nga def leneen ñu jàppale la si si nga def leneen. voilà docteur Assane Diop euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. je vous en prie je vous en prie. may fàttali yow yaay président bu syndicat des pharmaciens privés du Sénégal docteur Assane Diop ñu koy remercier bu baax a baax. merci beaucoup.